mel ni yegsi nañu fi nga xam ne moo di Jidda c'est première fois ñu am vol bu jógee euh, Dakar directement ba Jidda tey ban mel ni que ñu ngi sa kanam mbégte ak contentement la loo waaw comme ni nga ko xamee tey euh, mbégte la également sa sant yàlla la ndax euh, li Sénégal yëpp doon xaar mooy ñu am vol direct jógee Dakar ñëw Jidda te ki ko def mooy sunu compagnie nationale bi Air Sénégal donc dañ ciy sant bu baax euh, soo excellence le président Macky bi nga xamante ni moom euh, yéeneem ak liggéeyam mooy de fair de notre euh, pays le premier hub sous-régional donc tey bu ñu ñëwee Air Sénégal ak mission yi leen dénk yëpp ne leen vraiment bëgg nañu hub aérien boobu nekk une réalité tey ñu xool li nga xamante ni sénégalais yi boobu ba léegi. voyagistes yi pèlerins yi ñu ngi ko doon laaj mu doon vol direct jàpp naa ni tey ferte la pour Sénégal ndam la pour Sénégal mais également day gën a dëgëral la relation diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal donc euh, si loolu dama ciy sant bu baax le délégué régional bi nga xamante ni moom la yàlla dénk mu yor lépp lu jëm ci wàllu euh, umra ak aj donc di ko féliciter di ñaax rek les voyageurs suñu mën ko approprier parce que aussi bu ñu mettre les moyens nécessaires état jël ay jumtuwaay teg ko xam ne Air Sénégal bi ñoo ko moom te it ñu am beaucoup de plus de compréhension beaucoup de de, de, de plus euh, de pour ñu jàppale ñu dooleel ñu ba compagnie bi nekk une compagnie forte parce que lii tey lu am solo la ñu def direct Dakar Jëdda parce que temps bi doon na yàgg parce que escale yi doon yàgg te ay mag bu ñuy voyage day métti donc lii daal ouf de soulagement la fierté la pour Sénégal fierté la pour euh, monde entier bi yëpp jërëjëf. taakaala macha allah mi ngi noonu euh, comme ni nga ko waxee léegi taakaala ñu ngi taxaw ki nga xam ne sang bi moom mi nga xam ne moom la ni bu ñu xoolee sa kanam dañuy gis mbégte ak bànneex boo yëg taakaala c'est première fois ñu am vol bu jógee directement euh, Dakar ñu fi nga xam ne moo di Jidda tey la nga yëg. waaw ah, euh, maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan vraiment comme ni nga ko waxee. comme ni ko déjà waxee euh, mbégte la bi nga xam ne bu rëy bi nga xam ne am nañ ko euh, premier vol Sénégal bi nga xam ne dafay jóge euh, Air Sénégal bi nga xam ne dafay jóge Sénégal ñëw fii lii comme ni ma ko waxee ci aéroport la suñu fierté la ñun ñëpp. Euh, fierté la ci Sénégal fierté la ci Air Sénégal fierté la encore ci sous-région bi yëpp parce que ba léegi gisaguñu benn vol bi nga xam ne mooy ñëw direct fii euh, yaakaar naa ñëpp dinañ ci bénéficier wu te mu nekk li nga xam ne ndam lay doon ndamu Sénégal te ndam lay doon ndam euh, Air Sénégal li may dénk rek ñi nga xam ne ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di les voyagistes ak képp ki nga xam ne mu ngi jóge Sénégal vraiment nañu sagal li nga xam ne moom moo di suñu compagnie du Air Sénégal euh, jàppale ko ñun suñu parce que loolu moom mooy suñu ndam loolu moom mooy suñu tiitar parce que suñu compagnie nationale la ñu ñaan yàlla euh, yal na yal na ci yàlla def tawfiq ci li nga xam ne moom la ñu commencé te door ko te incha allah mu nekk li nga xam ne dafay continuer encore mu gën a yaatu encore surtout diggante ñaari ñaari compagnie yi vraiment loolu dafa dina nekk li nga xam ne ndam lu rëy euh, pour Sénégal di ndam lu rëy pour Air Sénégal di ci remercier suñu président de la République bi nga xam ne encore Euh, effort yi nga xam ne def na ko pour Air Sénégal lii yëpp defe naa ci vision la bokk euh, te yàlla yeggal na ko euh, vraiment ñu ngi ñaan yàlla yàlla na continuer ñu ngi ñaan yàlla yàlla na barkeel ñu ngi yàlla yàlla na ci yàlla def tawfiq vraiment yéen tamit ñu ngeen di remercier bu baax remercier ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci li nga xam ne moom moo di ci umra bi. vraiment di ñaan encore bu ñu demee nañu gën a ñaanal Air Sénégal ci Kaaba gag yëpp yàlla def si tawfiq gën a encore yaatal yëpp yàlla gën a ci def barke incha allah salaamaaleykum